Euh, damay tourné yow it daal di ñëw ci yow euh, Ousmane Sonko nekk tey euh, demoon na def ab entretien fee ci Walfadjri ah, <laughs> demoon na def entretien fee ci Walfadjri daal di def ab waxtaan ba ama am solo dellu siwaat ci campagne yi nañ nga ko doxalee dellu siwaat aussi ay réalisation yu Macky Sall dellu siwaat ci impôts yi tey boo ñu doon faram fàcceel ay kàddu yu Ousmane Sonko yi nga xamante ni wax na ko foofee nga tiire ko ci jàpp ko ci lan lay doon. maa ngi naan la maa ngi absenté sax ndax kàddu yi saa mu amee solo. Mhm. wolof mu ngi nekkoon ci dynamique boo xam ne sax bëgguma woon nga dagg ko. Mhm. daa mënta ñàkk rek mais mu ngi doon wax wax yu am solo yoo xam ne macha allah loolu daf lay plongé daf lay yóbbu ci yeneen monde. Mhm. da ngay xalaatee feneen. Mhm. saa kàddu yi rafet na lool macha allah te am na clarté te am na xam-xam macha allah boo xam ne wane na ko pour ñëwaat ci li nga wax noonu seetaanu ma lépp nag wax dëgg yàlla seetaanu ma lépp parce que. temps bi xaju fi woon mhm. campagne laa jóge depuis 17 heures maa ngi ci terrain bi ba léegi nii loo tax sax amaan tey ma sol verre yi xam naa internet yi nañ ne waaw Diouf tey verre yi mu sol na wala nangam nangam ni mu demee la quoi tey kër gi sax jotuma fa dugg mooy loolu euh, déclaration bi nga wax ni suivre ma lépp mais am na lu ma si jot a for mhm. li ma si jot a for mooy euh, président Ousmane Sonko da doon leeral rek da doon ñaax leeral leeral na mbir yu am solo surtout fi muy expliquer maanaam casquette premier ministre ak chef du parti maanaam chef du parti ban parti Pastef c'est important parce que dañ ne ko nee nañ ko kàddu yu nga yëkkati keroog en tant que premier ministre dafa mel ni sax da nga xaw a attaqué le président de la république mu leeral ne mos a président de la république te moom président de la république ñu bari ñu ngi wax ay problème problème te chaque jour ñu déggante ñu ngi ci jàmm mosuñu am problème te duñ mos am problème ci àdduna mais li ci ëpp solo mooy. keroog kàddu yi mu yëkkati waxoon naa ko fii yëkkatiw ko en tant que premier ministre loolu leeral na ko tey loolu rek rupture la cest dire tey bu demee ba ne l'État a failli à sa mission. Mhm. ci côté sécurité daf ko wax en tant que chef de parti chef de parti bi mu nekk rek moo ko permettre muy wax loolu. parce que dañoo nekk ci compétition boo xam ne égalité la ñuy doxee maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk ay chance maanaam euh, moom ak opposition bi raison pour laquelle utiliser wul logistique étatique comprendre léegi tey jii bu taxawee ne ñiy wax naan. Euh, premier ministre moo doon wax keroog wala Ousmane Sonko amuloon woon droit waxee ni mu waxee ñoom dañoo comprendre wala seen xam-xam moo gàtt mais seen xam-xam bu gàttul woon keroog jëmm ji doon wax dinañ xam ne jëmm di ji wax ni du premier ministre jëmm ji di wax nii chef de parti la ban parti la jiite parti bu tudd Pastef. Mm-hmm. wax na aussi tamit ci violence bi c'est important wax naa ko fii chaque jour ma wax ko fii c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal yow parti au pouvoir ngay dem campagne. opposition di la attaqué te mujjul fenn. rawatina mhm. ay trois attaques consécutives yoo xam ne dal na sa kaw te mujjul fenn ba amaana sax bi mu ci waxee la lañ lañ jàpp garde yi ñu jàpp yooyu comprendre donc mu ne tey jii pas Pastef du parti bu violent te wax na dëgg parce que Pastef seetlu li xew lépp. lu mhm. am. Mhm. Pastef bu ci duggee rek mooy dafa résister. te droit à la résistance. Hmm. constitution sénégalaise moo ko permettre bépp citoyen hmm. donc loolu kenn mënu ko bañal nit. mais da seetlu ne lu am Pastef lañ attaqué. Hmm. Pastef lañ attaqué Dakar ouverture campagne bi am na fa ñu attaqué waa kër Abbas Fall gaañ leen ba loolu merloo Abbas Fall ba mu génne kàddu yoo xam ne sax waru koon génne te président Ousmane Sonko tey confirmé na ne Abbas Fall ba mu waxee loolu nee moom moo ko njëkk woo téléphone. ne ko jàmbaar da ngaa mer rek mais waroon a waxee li mais moom comprendre na ne Abass Fall yëg-yëg gi mu am ci lool ndax ñu gaañ say ndaw ñoo xam ne euh, yow lañ yaa leen waroon a protéger te wax na wax ju am solo président mm-hmm. Ousmane Sonko nee na ndaw yooyu noonu jamono ji lan moo tax ñoom des fois duñ mën a tolérer yéen ñuy yëkkati seen kàddu rawatina kàddu yi mu yëkkati woon keroog. Mm-hmm. parce que tey ji xale yi seen parents yi. Mm-hmm. xale yi seen parents yi. dañ naan ñu si bari dañ leen daan wax ne yéen de yéen a ngi dem ca politique ba xeex bu jotee yéen xale yéen a koy xeex ñu gaañ leen te dara du ci am. Mm-hmm. tey jii nag yéen yéen a yor pouvoir ngeen di xeex ñu leen gaañ te yoon du ci am. comprendre mm-hmm. léegi loolu day daw yaramu leader yi ku ci mel ni Abbas Fall wala ku ci mel ni président Ousmane Sonko keroog Abbas Fall bi mu dem ba hôpital gis. ay ndawam gaañ yi ñu leen gaañ loolu nag moo ko yëngal parce que nit nit la te xol xol la mm-hmm. amaana mu wax daf ko wax ba pare après regretté ko président Ousmane Sonko waxul sax lu rëy. Mhm. moom appel à à la résistance la def appel à la résistance mm, parce que xale yu ndaw yi koy topp nee na daf leen a ñeewantal nee na day dem ba toog këram di xalaat xale yi. topp gi ñu koy topp te nee dem na ba ci biir gis ne sax amaana jamono ji jigéen ñi sax ñoo ëpp condition physique ñoo ëpp endurance hmm. jigéen ñi koy topp donc lu mel noonu lépp bu nekkee sa gannaaw ngay seetaan xale yooyu ñu leen gaañ te waxoo ci day nuru leneen hmm. rawatina waxoo ci en tant que premier ministre mais da nga ciy wax en tant que chef de parti loolu mën nañ ko ko nangul hmm. comprendre moo tax des fois ñi dañuy manipuler si manipulation manipulation dëkk moo tax waa kër Macky Sall lañ fi defoon rawatina immeuble yi ma fi doon wax démb ne récupéré nañ vingt cinq immeuble yoo xam ne mm. donc immeuble état la woon ñooñu sàcc ko ku nekk bëgg koo moomal sa bopp ñoom ñooñu di wa Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye def nañ la tout ba récupéré ko ñëwaat na scandale yi xam ne amoon na fi xam ne mm. chaque jour moo ko fii scandale yoo xam ne yuñ teg seen loxo xam ne lii lu am la te loolu bu haute cour de justice taxawee ñoo ñëpp dañ répondre de leurs actes mm-hmm. ñëwaat na

xaalis boo xam ne dafa waroon ñëw ci réew mi loolu la la la leeral ak sàcc gu ci jotoon am ay surfacturation yu ci jotoon am loolu la leeral mais deful benn scandale. wax na aussi si stade bi nga xam ne Macky Sall daal dina ko taxawal mu ni Macky Sall daal ay tabax dong la bàyyil Sénégal mais du lenn loo xamante ni tey sénégalais yi daan ci gis seen bopp ci wàllum dundin gi ci wàllum li nga xam ne mooy mbay meek napp geek. Euh, li nga xamante ni euh, mooy yu ni mel. xam nga infrastructure dafa am solo ci réew ñëpp xam nañu infrastructure dafa am solo ci réew mais day fekk. yow nga regle wàllum n'est-ce pas euh, denrée alimentaire maanaam nga wàññi leen régler wàllum quotidien des Sénégalais cest à dund gi nga mën a am noo ko wàññee ba mu ba ñëpp mën ci am accès ñëpp accès da ci ba pare dans ce nga mën a tabax yenn da ngay seetlu li ñu tabax foofu ca jam ñaajo stade bu rëy boobu noonu mm. stade bi baax na parce que arrangé nañu au moins Sénégal am benn stade boo xam ne vraiment euh, di nga mën a accueillir foofu say nawle yi xam ne yéen a ngi compétir yéen a ngi tase mm. waaye avant loolu ndax biir nit ñi dara mu ngi ciy am saako ceeb ba amul li dara du taxaw. non mu ngi loolu parce que balaa ngaa mën a jóge sa kër di paas pour dem stade pour seetaani match day fekk yow nga lekk ba pare. Mhm. mais boo amul loo lekk amoo loo naan nan ngay demee di seetaan seetaan match di nekk à l'aise mante ne c'est-à-dire li mu doon def yëpp nekkul woon leen dul ay infrastructure yoo xam ne bés bu fiy jógee danaan def naa bilan liggéey naa. Mhm. luñ ko xoolee luñ naan Macky fi def. c'est ça d'ailleurs. lettre am bi mu envoyé mu ngi ciy wax bilan bi mu def. lettre bi mu envoyé def na ci bilan bi. maa def lii maa def lii maa def lii maa def lale mhm. d'ailleurs si bilan boobu la Amadou Ba doon defee campagne présidentielle mhm. parce que ñoom ñoo bëgg loolu maanaam ñoom dañuy bëgg di fasal di di di di fësal nekkul leen loolu def ay réalisation loo xam ne dafa c'est touchable c'est-à-dire c'est palpable mhm. lu ci mel ni ay infrastructure pour ëllëg suñ fi jógee ne lii ñoo ko fi defoon wala suñ bëggee convaincre les Sénégalais ñu ne ñun ñoo leen defaloon lii alors ñi ngay waxal noonu lekkuñu ñi ngay waxal noonu lekkuñu moo tax président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko bi ñu ñëwee bi ñëwee la njëkk a wàññi denrée alimentaire yi la njëkk a wàññi mais li ñu ko wàññi wàññi dem nañ ba ci biir xam ne donc taxul mu sotti taxul mu sotti maanaam taxul ñu régler le quotidien des Sénégalais. Mm-hmm. am la moo tax mu demee noonu. parce que ni ñu ko bëggoon a gérer dañ doon góorgóorlu di dem ne rek mais ni ñu ko bëggoon a gérer mënul woon ne. mënul woon nekk. parce que état mu ngi mel nit nga jël maçon bëgg koo jox pour mu tabaxal la kër gi mais soo jëndul ay ciment jënd ay fer na lay tabaxee kër gi donc ñu jox la état ne dañ bëgg ngeen doxal réew mi xaalis bi waroon doxal réew mi yëpp sàcc nañ ko yóbbu. d'accord kon kooku nan lay doxale dikk na it ci ni mhm. euh, erreur bi Macky Sall def wala erreur bi gouvernement bi fi nekkoon def ñun duñ ko def loolu la wax. erreur ban erreur la loolu. wax na wax na dëgg xam nga erreur bi fan la commencé. fu mu commencé sàcc xaalis. ah kon ñoom nee nañu. sàcc xaalis. lu ñu jël alal yoo xam ne ko laal duñ ko xalaatuñ ko. muy benn. te képp ku leen gis képp ku leen xam xam ne ñii du nekkuñu ay nit ñoo xam ne luñ moomul dañ ko fay jël bokkul. d'accord comprendre nga. jël justice bi moom ko. Hmm. loo bëgg si justice mooy am. te yow gis nga preuve bi maanaam indépendance de la justice amul loolu erreur la. d'accord la preuve exemple type bi ma lay jox. bu fekkoon indépendance n'est-ce pas de la justice na mu fa demee woon noonu la fa demee ba léegi. Mhm. Bougane Gueye du génne. jamono jooju li ko mm. daloon du génn. d'accord bu fekkoon nguuru Macky Sall bi li doon dox si wàllum si bu Macky Sall mooy dox ba léegi Cheikh Yérim Seck jamono yi kaso lay ne nee ma moo tax. lu tax accusé fi woon police. ci affaire Ameth Ndoye. ci affaire Ameth loo xam ne sax gendarmerie la concerné woon nga nga nga ñëw accusé police. Mm-hmm. ne dañoo jël permis jàmbur dem ba ci plateforme dindi turam ba pare ne da ngay porter plainte contre la police sénégalaise. bu doon régime séparation des pouvoirs am waaw amul bu doon bu doon jamono yi maanaam régime Macky Sall. oui Cheikh fi ñu toog ni mu ngi kaso. Ah, loolu foofu la teg nii ñii li ñu ci ay erreur ñun duñ ko. te seen seen dafa bari sànq rek wax naa la immeuble yi ñu sàcc. 26 immeubles. yeneen scandale yi ñu fi def. Hmm. erreur yooyu duñ ko mës a def. budget comme su ma demee tey ci ministère maa ngi koy sànq si campagne bi ministère n'est-ce pas de l'enseignement supérieur exemple budget bu waroon a couvrir toute année. nga lekk wala nga sàcc xaalis bi ci trois mois ngeen lekk ko ba n'est-ce ministre de l'enseignement supérieur bi fi nekk muy docteur Abdourahmane Diouf tey taaba taaba pour mën a fay ay ay ay dem ba mënul fay bourse ba Ecobank bi xam ne moom moo a fay bourse nga amel ko quarante milliards repreneur réseau yi ñu doon grève te buñ grèvee mooy étudiants yi duñ lekk wala ku bëgg lekk da ngay dem jëndi fonde wala nga jëndi cere ñu amee leen 20 milliards Sonatel mi nga xam ne mooy gérer wifi yi parce que l'université pay am wifi Sonatel nga amel ko un milliard cinq millions hmm. loolu lépp ñi fi jóge ñoo ko lekk yóbbu li xew si ministère de sports xam nga ko plus de sept milliards yi li xew si ministère de la santé waxuma la sax soixante onze milliards yi hmm. mais keroog am na beneen scandale bu génnaat employé fictif yi ñu jël leen fay alal ju dul jeex hmm. comprendre nga fonction publique fii lañ toog ñu si doon wax scandale yi fa am scandale yi bu ñu koy lim daanaka du jeex léegi yooyu yëpp ay erreur la yoo xam ne résime passé def na ko ñii du leen masalal parce que ñii ay nit ñu jub lañ te biñ ñëwee ba léegi ñu ngi wane ni ñoom dañoo jub. Mhm. jub mënta weesu. oui parti au pouvoir pour une première fois dans l'histoire politique du Sénégal c'est important. Mhm. parti au pouvoir di dem campagne. yóbbul benn logistique étatique fii parti au pouvoir yi daan dem campagne yépp mhm. waxuma la sax balaa may dugg ci logistique étatique xaalisu état ngay yóbbu ngay préparer pour campagne maanaam teel ngaa jël sax kees gi ba pare jox ñi nekk Thiès ñi nekk fële ñi nekk fële ku nekk nga jox ko nga financé ko pour mu waajal campagne bi président Ousmane ko bu mu ñëwee lan la wax ñun lañ daan def lañuy continuer di def mooy patriote yi ñoo mas a financé campagne bu passif te ñoo mm. koy continuer du dañoo ñëw ci nguur rek dañuy ñëw naan lépp gongo jamono ji dañ dem jël xaalisu nguur naan dañ koy campagne jamais de la vie moo tax mu woote waat fundraising bi daan faral di am bañ am si tant de millions arena rek moo tax mu woote arena arena rek mu am fa 525 millions. Mhm. ak yeneen millions yi yi xam ne vraiment dugg si ne looloo tax campagne bi ñu mën ko dérouler. mais bu doon ñiy passé rawatina élection présidentielle bi passé ku mel ni Amadou Ba dem nañ ba à donné ñoom ñu ngi doon kaas parce que dañ naan jotuñu seen fond campagne yi leen Macky waroon jox joxu jotuñu ko. Mhm. Macky fan la ko doon jëlee ci réew mi xaalis réew mi lañ daan demee campagne. loolu dafay jeex nag ay erreur la ñëwee daan commettre. ñii bi ñëwee dañ ko fay dindi. Mhm. comprendre nga jël otey état. Mhm. otey administration nga koy yóbbu ñoom mhm. ñëpp di la topp ngay dem de def campagne. ñii mhm. dañ ko fay jëlee. ba keroog bi attaque bi amee ba xam ne ba ba ba ba ministère ministre n'est-ce pas de l'intérieur gis ne xëy na euh, le premier ministre nekk chef de parti mooy le premier ministre du Sénégal loo tax ñu yóbbul ko envoyé ko quelques éléments yoo xam ne dañ mën a gérer sécurité parce que comme dëkk bi yëngu na te ñu ngi leen attaqué te moom mooy premier ministre du Sénégal mais ñooñu bi ñu ñëwee après président Ousmane Sonko dafa waat ministre bi ne ko su nga ñii. waa BIP ñu dellu man sama sécurité ñu kon ne dem aar parce que loolu lan la ciy bañ ñu ne après moo utiliser lii te waxoon na lii waxoon na lale loolu tax si côté boobu si logique bi mu nekk si dynamique bi mu nekk ba fi mu ne nii si loolu lay wéyale loolu lépp ay rupture la ay erreur yoo xam ne mhm. ñee dañ ko commettre woon ñoom bi ñu ñëwee ba fi ñu toog ni erreur yooyu yëpp ñu ngi koy firndeel ne ñoom nekkuñ si lool te ñu ngi nekk droit vraiment euh, vers le droit chemin mhm. ba sénégalais yëpp a kontaan yëpp gis nañ ne rupture bi ñu doon xaar bi xam ne dañ ko daan mas a rêvé moom lañ gis nii mooy lu am waaw donc mu nekk mbir moo xam ne war nañ ci bàyyi xel mhm. war nañ ci bàyyi xel tey waxaat na ci reddition des comptes par rapport ak euh, ñi nga xam ne amaana jëloon nañ suñu alal war ko dellu hmm. see ñu demee noonu te wax na ci kàddu gu am solo nee na ñun duñ duñ créer ay dossier hmm. maanaam duñ créer ay dossier comme moom dañ ko doon créer lay ay dossier parce que Ousmane Sonko liñ ko doon yóbbu ci yoon di ko taxal di ko wutal ay dossiers yoo xam ne ñoom ñoo koy n'est-ce pas ñooy créer ñooy monter des dossiers de toutes pièces di ko jëf taxal ci lu ne lu ne lu ne lu ne hmm. mais ñoom defuñu loolu ñoom la main dans le sac lañ lay jàpp. Mhm. buñ la jàppee la main dans le sac dañuy xaar ba àpp bi jot ba jour si ba jour bi ñu war a lijjanti say mbir ñu lijjanti say mbir comprendre mhm. bokkul ak ñëw di précipité di tuumal nit loo xam ne amul. Mhm. alors que ñoom doxuñu ci loolu. tey ji ñu ci baree baree bare war nañ leen woo. ñu ci bari war nañ leen woo. mais mënaguñ leen woo. lu tax waaw kay chaque jour moo ko fii parce li fi xaw ci dëkk bi lu baree baree bare ay ministres ñoo ko orchestré. des ministres d'alors ñoo ko orchestré te ministre danga am li ñuy wooye privilège de juridiction privilège de juridiction boobu mooy waral kenn mënula entendre fenn fu dul haute cour de justice te haute cour de justice bi taxawagul jamono ji mhm. boo seetloo da gis ancien ministre yi comme ay Pape Malick Ndour ni mel ci campagne yi maanaam dañuy dem ba dañuy sonn ak wax yi ñuy wax wax yu ñaaw mhm. parce que Pape Malick jàkkaarloo na ak ay ay femmes naan leen ku laan boo leen daan feebar maa leen mm-hmm. daan faj ku ci am doom maa lay faj nangam nangam mosu leen ko Ousmane Sonko maanaam foofu dafa dem ba ñëkk maanaam mm-hmm. li nekk ci xolam lay génn parce que xam ne ne mm-hmm. nañ loxoom mu ngi ci biir donc violence yooyu yëpp après comme yow am nga ay dossier dossiers yoo xam ne après war nañ la woo Prodac bi tamit dañ ko ciy woo mais boobu nekkul en tant ministre parce que nekkul woon ministre donc yooyu yëpp dañ la ci léegi ni ngay empêcher exemple ñu woo la en tant que ancien ministre du lenn lu dul xaññale euh, les trois cinquièmes trois cinquièmes mooy quatre-vingt-dix-neuf des députés parce que ñee suñ ko amee rek mooy haute cour de justice mën nañ ko mën nañ ko mën nañ si dog jël ay dogal donc moo tax fi ne nii mhm. ñoom ñëpp ñu ngi mëne ay campagne moo tax ki toog ca foofu ca Maroc di def campagne sur WhatsApp loo xam ne moom moo daan wax ñi daan kacc kacc tey moom mooy kàcc kàcc mooy kàcc kàcc leen du dul tiit parce que dañuy bañ après ku leen entendre. Mhm. te loolu mënta ñàkk faaw mu am. mu mel ne yàggatul. Euh, visibilité bi aussi entre Bougane Gueye Dany ak euh, Ousmane Sonko euh, ñi ñaa leen di tollu le mbagg fi ñu toll naan ñii seetaan Bougane moo ëpp foofu ñii seetaan Ousmane Sonko donc Bougane la a jox bopp que ki nga xamante ne njiital Pastef. xam nga njiital parti boobu di Ousmane Sonko. xam nga des fois journaliste mën na poser question boo xam ne xam na réponse day am. <laughs> maanaam waaw maanaam des fois day wax loo xam ne sax moom mën na joxe réponse bi jaru sax muy poser question. ah ndax lan loolu. des fois da ngay poser loo xam ne yow xam nga ne li amul. lan laa xamul noonu. mooy dualité bi nga bëgg créer mënta ne parce que kii day jënd ay vues kii ay vues naturelles lay am loolu yow yaa ma ko gën a xam. nu ñu koy différencier noonu vue naturelle ak vue artificielle. Euh, tey jii. yow ak sa morom ak keneen ak keneen ñun Sénégalais yëpp ñun ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko ñi koy seetaan dañ koy seetaan naturellement. Ousmane Sonko mooy wax ñu toog seetaan ko ndax lan ndax xam-xam bi muy wax ndax lan ndax information yi nga mën a jële ci discours mhm. pour yow après booy waxtaan da ngay ay waxam parce que ay kàddoom kàddu dëgg la ay kàddoom kàddu sell yu sell la mhm. kàddu Ousmane Sonko doo ko dégg mukk ne li amul jox naa la benn preuve fii démb ma ne la observateur journal boobu observateur bi Ousmane Sonko doon wax ci problème mu Mamour Diallo. ñoo mhm. njëkk bind ne amul. bi mu ci wax dañoo bañ ne amul. Mhm. démb suñu borom wëlbati situation ba démb ñoom ñoo dugal ne lu am la. Mhm. prix du terre bi ko Ousmane Sonko di wax ci assemblée nationale 2018 ne plus de 1000 milliards la fekk ñoom Amadou Ba nee nañ la bi ko Ousmane Sonko di wax ñoom ñëpp dañ ne du dëgg histoire jox ko raison. maquillage des chiffres ba mu ko waxee ñu ne du dëgg FMI ñëw jox ko raison. ba mu fi wax dossier mbay Prodac ma Mame Mbaye ba muy wax ci dossier bi ñu naan lii amul. Mhm. ama tax Mame Mbaye Niang lànk du ñëw ci réew. Mhm. parce que dossier bi suñu borom dem na ba dogal Ousmane Sonko en tant que mu dem ba téye dossier bi liir ko teg jox ko ñi mu war a jox te ay exemplaires. yóbbal nañ ko d'ailleurs looloo tax. moom Mame Mbaye mu exilé wul lànk ni du teg fii tànkam. nee na daa jàngee. <laughs> looloo tax mu teg fii tànkam donc ay bugaan tey jii buñ demee ba ñàkk jom waaye di. di mhm. toppandoo nit. di toppandoo nit ne da ngay def marquage à la yaa ngi topp nit ki ñu ne waaw ngay topp ñu ne waaw ngay topp ñu ne waaw nit ki woote arena nga nga daw res. nee na moom moo gën a xeeri Ousmane ko si ay kàcc waaw si ay kacc c'est important. si ay kàcc Bougane lu mu wax am na. Bougane mosul loo waxul ne man Bougane géey wala Bougane Dany Gueye laa tudd ja bul ko maanaam am ci ay dut am ci ay dut. Hmm. koo xam ne yow sa programme ay Maam Ndiaye Savon la ay xeesal. waxi xeesal mooy sa programme moo toog démb xaw ma barki démb télé di wax programme Maam Ndiaye Savon ma seen en tant que lutteur jóge ci suuf yéeg ba ci kaw ñu ne delloo ci ciy mu ne TikTok mu ne xale yi dañ leen war a fay ci TikTok bi maanaam daal dafa bëgg daal te gàttal ñëpp nekk ay TikTokeur comprendre koo xam ne il ne parvient même pas à payer n'est-ce pas kooku mooy taxaw des fois di wax lu ko neex xaalis bi mu war a fayee employé moom lay dem fay pour am ay vues léegi boo amee vie ba pare. non attends xaalis mu war a fay employé. moom lay dem fay ay vie pour waaw vie YouTube léegi bu li gën a doy war mooy dangay fay ba pare si direct bi. waaw ba nga am li nga am direct bi jeex na ñu di dem xooli ndeketee ñetti nit a doon seetaan. maanaam kon inconvénient yaa ngoo vue en live ci live bi lay yem. waaw si live bi lay yem léegi li nga jëndoon si live bi lay yem léegi bu émission bi jeexee nag ba nga dugg YouTube ne xaar ma xool da ngay dugg gis ñetti vue trois vue nga reetaan. xam ne mooy perdre xaalisam rek. lu ko jaral loolu mais du moom rek. Bart kii Barthélémy Dias waaw émission bi keroog ma am Ngagne Ndiaye maanaam li mu directive bi ba muy daw vi mu amoon kenn mosu koo am si àdduna bi. mosu ko am si àdduna bi si àdduna bi dëggantaan nga pare mu nekk quatre vues. d'accord nga xam ne ay taxawaalu ay caaxaan c'est xam nga ndeysaan euh, maa leen di jiite ak yaa ñu jiite bokkul. maa leen di jiite ak yaa ñu jiite bokkul. ñoom li ñu bëgg forcer mooy. Mhm. par force dañoo bëgg dañu ñooy diriger Sénégal alors que ñun Sénégalais ñoo ne Sonko yow yaa ñu diriger. Mm. yaa koo tànn mu tànn président Diomaye Faye ñu ne yéen yow loo wax koo àndal ñun d' accord d' ailleurs loolu moo tax bi pour Barthélémy Dias mën a nekk maire de Dakar il a fallu la mainmise d' Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo wax euh, Khalifa Sall ne ko bul jiital su am waat di nañ mhm. jiital Barthélémy Dias. Mhm. jiital Barthélémy Dias Barthélémy Dias woo Ousmane Sonko ne ko faa nga ñëw Dakar yëkkati sama loxo Dakar waaye gis loolu pour man votel parce que koo joxoñ kooku la votel Sonko mhm. mhm. am reconnaissance ba fu mu taxaw da koy mhm. wax donc looloo tax tey jii boo ñëwee Thiès docteur Babacar Diop bi muy nekk maire de Thiès ñu bari xamuñu ko woon mais comme dañ ne Ousmane Sonko moo tànn telle personne nañ nañ nañ votel diw dañ lay votel kon loolu xam nga lan nga ci jàng mooy li mu la sànq maa leen di jiite ak yow yaa ñu jiite mooy foofu ñun ñoo ne Ousmane Sonko yow yaa ñu jiite koo tànn tamit ñun kooku lañu faral la preuve tamit si élection législative yi mhm. mais député ñi def liste yi nii kenn da mhm. leen xam ñu ci bari kenn xamu leen mais gis nga caravane yi ni muy mel saa mi sànq mu ngi foon gis na ni mu mel mhm. gis nga caravane yi ni muy mel suñ ne la kii député na la tudd xamul turam Amadou Ba nga ciy tudd ak Cheikh Bara Ndiaye mi ñëw sànq ñoom ñaar nga ci tudd ñi des xamoo leen xamoo leen mën nga dëkk cee sax du leen xam. mais da booy voté ñoom ngay voté laa leen lan moo tax parce président Ousmane Sonko moo tànn ñi. Hmm. loolu mooy la différence entre les investis maanaam ñi ñu investi Pastef ak ñi ñu investi si si opposition parce ñi investi Pastef su la neexee sax nga bañ a campagne nga dem tëdd sa kër di nelaw alors que ñi nekk ci opposition par force tu as l'obligation d'aller euh, sur le terrain am yow alors que waa ko Ousmane Sonko ñoom su la neexee ñu toog parce que Ousmane Sonko campagne bi yëpp moom la ñin ñi Ousmane Sonko la ñuy bàyyi xel Ousmane Sonko lu mu wax ñëpp d'accord nañ moo tax mu ne la bokkul ñuy jënd ay vues ak koo xam ne am waxam naturel rek ñëpp koy seetaan. tey jii 22h de dem bi xale yi sax jàpp nañ ko ba d'ailleurs sànq seetaan na émission may mun Maimouna Ndour fay ak Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. ba Maimouna Ndour Faye di ko di ko ñaawal naan ko ni ah nañ gaaw émission bi nañ gaaw. parce que borom réseaux sociaux yi kilifa gi moo war a wax léegi 22 heures dem te buy wax ñëpp kenn dootuñ seetaan kenn borom xol bu bon bi nag xolam commencé bon ne ko waaw ba ba mooy mu ndururu fay ne nii waaw ñun Ousmane Sonko nag benn rek leen rek mooñ jaaxal ji moom lan moo tax moom buy waxtaan ak population bi ñun dañuy ñun du duñu woo daal duñu invité ñoom presse yooyu du leen invité ay Walfadjri yooyu lay mm-hmm. dem léegi Cheikh Yérim Seck ne ko yéen ngeen ngeen ngeen ngeen ko seen live maanaam ngeen ngeen ngeen ko lijjante yooyu demee mu ne ko deet deet ñun suñ sañoon ko sañoon da am Ousmane Sonko ah, maanaam minimiser ko foofu xamal ko ne bu dee dëgg rek a tax ñuy wax ku ku yor presse ku ne boo sañoon Ousmane Sonko nga tàllal ko micro parce loolu dafay am lu muy jouer ci sa voix de presse mm-hmm. comprendre mm-hmm. a moo mën a maye moom moo ne suñu borom li ma neex man loolu laay def suñu borom moom la neex mu def li Ousmane Sonko li mu nekk nii suñu borom moo ko def moo tax tey bi ko bi ko bi ko euh, waa Walfadj bi waa Walfadj bi ñu ko posé question boobu. Mm. ne yow xale yi lay topp nii du la def dara maanaam yow ful bi lay topp nii ndax yow du la def dara. Mm. moom mu ne nee na su demee ba këram. su mm-hmm. toogee xalaat affaire yi non daf koy jaaxal. nga xam ne suñu borom rek man moo ko mën moom kese moo man comme ñoo mm. ñooñu ngay tudd noonu nañ muñ. xam ne suñu borom moo dogal. jarul jël sa xaalis di jënd ay vieux yu ne mel Barthélemy Diaz keroog moo fi toog ne amuñu mi xaalis buñ defee meeting. foofu ca Dakar. Mhm. li xaalis yi ñuy jëndee vie mënoon nañ ci def meeting. du de xaalis de. Mhm. xam nga lan la amuñu ay nit moo loolu la. la bonne réponse la booloo du xaalis nit la bugaan rek mën na financer seen meeting. waxuma ay soxna Anta Babacar Ngom ñoo waxuma ay euh, kii ni moom moom moom Barthélemy waxuma ñoo mais bugaan rek mën a financer seen meeting. dañoo lànk bañ a def meeting a def meeting. xam la moo tax parce que amuñu ay nit gis nañ li xew ci terrain bi gis nañ ni Ousmane Sonko di drainer les foules gis mais xoolal li xew Kër Massar keroog dañ ne li xew Kër Massar si mbooloo masul am si Sénégal bañ na Kër Massar les continent la. foo dem ni ni foofu foo dem ne fii la xoolal li xewoon Saint-Louis. Mhm. mais xoolal li xewoon Mbour. xoolal li xewoon euh, fee nu mu tëddee euh, euh, nu mu tëddee Mbacke. Mbacke Thiès. Thiès maanaam foo dem da nga ndax fii ëppul. c'est ça léegi nag ñoom li ñuy gis image yi ñuy gis yooyu ñoom xam nañ ne bu ñu wootee ñetti nit du ñëw looloo tax nag ñu jaarale ko ci ñàkk xaalis te mosuñoo ñàkk xaalis ñoom ñu ëpp ñëpp xaalis. Hmm, d'accord parce que ku dul fay. impôt moom di nga yor xaalis. ku dul fay impôt di yor ah, xaalis am na solo bu baax ci Tidiane ma jaajëfalaat bu baax baax ñi ñuy seetaan en direct guddi na loolu waaye bàyyi nañ seen activité yëpp jàkkaarloog ñun di ñu seetaan.